Baba Ndiaye doomu géeja waay bi man xamoon naa ni doo koy bàyyi mu sedd man xamoon naa ni doo koy bàyyi mu sedd. mbokk yi ñu ngi leen di ñaan ngeen taaxirlu bu baax suñu ay kàddu di kàddu leeral jëm ci clip bu bees bi nga xam ni Ngaaka Blindé moom lay waaj a génne tuddee ko Iblis lan moo waral Ngaaka tuddee ko tur boobu lan moo waral ñu toog ñeenti fan gisuñu Ngaaka lépp fii lay leeree ci Allo dakaar ginnaaw loolu ñu ngi leen di ñaan. ngeen abonné bés cloche notification ndax mboolem vidéo bu ñu dugal ngeen mën see jot si lu gaaw mbokk yi ñeenti fan a ngi nii gisuñu ngaaka dégguñu ngaaka te ku xam ngaaka xam ko boo ko classé deux heures am na nu muy demee balaa 17 heures mu tontu la mais nag lu Brick daf koo wax kàddu gu metti tànd béri estaat yi mbedd yi forum ngaaka blindé moo day digg Dakaaru ngaaka blindé nangam nangam Ngaaka toog ñeenti fan ñi naan Ngaaka gañe nañ ko ñi naan Ngaaka est-ce que dina tontuwaat Ngaaka xëy ci mardi jile waajal benn clip tuddee ko Iblis si biir clip bi Ngaaka mu ngi ci wat kenn ñii ne Ngaaka est-ce que si clip bi waa Akhlou Brick la si tontu wala bu fekkee da di tontu ki muy wat kan la si ñoom ñaar wala day boole ñoom ñaar ñëpp wat leen Ngaaka def lu mu mës a def. ngaa ko musul toog benn fan te tontuwul ci classe ngaa ko mu toog ñeenti fan kon ngaa ko bu demee ba leen di classe wala di tontu nañ xam ne clip boobu dina doon kilib buy tukkal àddina ndax ngaa ko boo ko classé tey bu xëyee suba tontu la wala ay heure mu tontu la buñ demee ba ngaa ko toog ñeenti fan di door a tontu kon kilib boobu noonu bu génnee dina doon garaaw ngaa ko nag ci clip bi amul benn parole boo xamante ne jot na ko see wax mais buñ gisee liñ l'image ça buñ gisee l'image yi xam nañ ni que Ngaaka dafa pare pour li nga xamante ne mooy damat leen benn par benn li may laaj en tant que rappeur wala yow mi nga xamante ne ay suivre rap lan nga war a mën a xaar wala lan nga yaakaar ni Ngaaka moom lay waajal ñaar ñi nga xamante ne ñoo di doomu mbuur yile di aara ak daysa ginnaaw bañ ko sànnee track wàññi ko ci ay kanamu bokkam ci ay kanamu fansam ba ci digg géejuwaay ne ko Ngaaka moo day fi nga xamante ne digg Dakaaru waa dakaar di ko coow dugg si stade fépp lan ngay xaar ci Ngaaka jamono bilee bu leen fàtte abonné bés cloche notification ndax mboolem vidéo bu ñu dugal ngeen mën see jot su lu gaaw jaa ngeen jëf